ngi leen di fay. gis nañ fii tey situation bi am fii incendie bi sapeur ñëw na mënul am accès population bi am na ñu si jote interview ne nañ par exemple accès bi fii dafa difficile lan nga mën a wax ci loolu. waaw mais li ñu wax dëgg la parce que ça fait depuis plus de 14 ans que ñu ngi fii affaire yi nit ñi occupé fii de façon anarchique nekk fii on leur a donné deux fois des sommations jógoguñu maintenant tey jii bon yàlla moom ñëw na egsi léegi li fi xew tey jii nañ sant yàlla d di marché wu population yi ñi si marché parce que bakkan nit mu doon dafi ron tey bu fi bakkanu nit rotoon tey ji dee doon leneen mais nañoo xam ne incha allahu rabi à partir de demain on va faire des sommations à lever immédiatement on va chercher des plateaux et ku ay oto mag yooyu on va te faire sortir par la force des choses yóbbu ko en fourrière parce que fii du espace pour loolu nit amuñu fu ñu respirer environnement nit ñi fu ñu respirer mais aussi di lancer un appel aux populations bu ñu ko fi dindee tamit képp ku fi ñëw di fi def lu fa warul def ñu silaane ko rapidement balaa moo ëpp moo ma c'est-à-dire que bu nit di def lu dul yoon ñu signalé ko ñu dindi ko bu ñu ko defee benn yoon ñaari yoon kenn dootu ko def mais bu ñu seetaanee ba mu appaat loxo ñu ñëw taxaw di yuuxuwaat aussi ça absolument rien donc daal incha allah partir de demain j'ai pris les dispositions avec le sous-préfet de Dakar j'ai pris les dispositions avec le commissaire du 4 arrondissement j'ai pris les dispositions avec la ville de Dakar mais à partir de demain on va faire déguerpir toute la zone là et puis ensuite le fermer population yi nag veiller si après parce que boo xoolee Sénégal yëpp lii dafa bëri ci koñ yi état bi yenn mesure la war jël ba nga xam ne garage yi dañ leen di defal benn benn angle loo xam ne ñoom ñëpp fa la daje pour mën liggéey. waaw mais je crois que l' central amoon na projet bu mel noonu euh, sur Diamniadio xaw ma fu mu toll je pense que da am na benn moment ñu ne dañuy jël mécaniciens yi nekk fii yëpp yóbbu leen Diamniadio wutal leen foofu ay atelier ñu nekk fa. bon xaw ma fu si état central toll mais je crois que bu fekkee lu mel noonu am na ne xëy na dina leen mën a a liggéeyee xam nañu ne ñëpp ne xam nañ ne Dakar fi mu nekk dafa saturé commune nu Gueule Tapée Fass Colobane espace amatu fi li fi am ci espace as néew pour nit ñi mën fa dox la pour nit ñi mën a dem doxi seen soxla pour xale yi mën a doxi seen soxla la donc bu ñu ñëwee occupé buntu kër nit ñi rek déjà indi nañu problème tey jii sapeur yi dugguñu woon musiba mu rëy moo fi naroon am noonu comprendre ne bugguñu xeexuñu kenn terewuñu kenn mu liggéey mais booy liggéey aussi na ko teg si yoon la nga xamante ne doo tooñ sa moroom sa moroomu jullit mais di liggéey di daan sa doole di tooñ sa moromu jullit aussi tegoo ko ci dara nañu baal nañ ma baal ci wax ji mais loolu laa sentir loolu laay wax population yi fii tey ji buntu kër yëpp mu ngi gaari fees dell oto police mënul jàll auto gendarmerie mënul jàll patrouille police bi bu ñu ñëwee fii di def patrouille par guddi sax dañuy am ay problème bu ñu fi agressé ay nit wala ñu fi tux ay yamba wala ñu fiy jaay ay yamba mais suñu ay doom la ñuy yàq donc il faudrait que ñu xam ne daal lii moom ça va prendre fin mu neex mu naqari ça va prendre fin parce que man dama ñëw fii pour bu répondre aux attentes des populations loolu la population yi bëgg dinaa ci taxaw mais bu ma ci taxawee ne population yi def ful la fayda ba pare ñoom ëllëg leneen du fi amaat merci beaucoup